njabootam wis ko ci biir këram te koy ñanaan mboolem xalif ci biir réew mi yëpp l' émission des émissions Doratina ñu fas yéene di ci ànd ak Sadio Goumengue comme ni ñu koy defee lundi bu jot ak ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu bàyyi ko mu nuyoo ak internet yi ñuy seetaan alaa ci maa ngi lay nuyu. mba jigéen ñi ngi lay fay di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñi ngi ñuy teewlu. Hmm. nekk ci biir réew ak bitim réew fu waaye mën la nekk ñu ngi am ci ñëpp mbégte ak kontaante Eh, di nuyu bu baax xalifa général des mourides sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi tànd ak wér. waaye di nuyu di ziyaar sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoul Ahad Mbacke. Hmm. ñu koy ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool tànd ak wér. di nuyu sëriñ Xaadim ne ca kër ga ak njaboot ga yëpp nuyu ne sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimu Rahla hmm. nuyu kilifa diine yeewoo ci biir di nuyu sénégalais yi nekk bitim réew mais aussi tamit di nuyu sénégalais yi nekk ci biir réew mi. Mm-hmm. di am ci ñëpp mbégte kontante ak ñi nga xam ni ñi ngi teewlu l'émission des émissions saa su ne. Mm-hmm. di joxe seen xalaat ak seen i gis-gis muy seen commentaire mm-hmm. moo xam ñi bokk ak ñun gis-gis ak tamit ñi nga xam ni wuute nañu gis-gis lépp lekk njariñ la jëm ci réew mi. yàlla na lépp rek doon jàmmi Sénégal. allahumma ñu ngi am mbégte bu baax a baax. <laughs> di teewaat ci plateau. voilà macha allah Assane fëgg la tey. <laughs> non tey dafa am leneen gisoo ko dafa yenu ay bagages bi nga def dafa ñëw. fekk hémorroïde bi. egg si ah. commande bi. moom la doon yenu noonu. wallaay. di ko dugal moo tax tey tal la ñu <laughs> ngi noonu ay ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñi nekk ci suuf di leen siyaar bu baax a baax euh, comme ni ko ji waxee rek euh, door nañ ci l' émission des émissions tey nag suñu waxtaan du jëm leen ci lu dul rek waa ji ñuy wax Djibril Bièye moom nag ñëwoon na fële ci émission bu ñuy wax dumbelaan caat mi nga xamante ne ni moo bokk ca Y'en a marre ba muy àddu ci fortune ki nga xamante ne ni moo di premier ministre bi fi nekk di Amadou Ba ah, ci alal ji mu am moom nag nee nee na waruñu yem rek ci alalu Amadou Ba buñ ci ko ci tuddee war nañ ci tudd Ousmane Sonko ak euh, ki nga xamante ne ni moo di Bassirou Diomaye Faye léegi léegi ñu dikk ci ak nu mu gën a yaatoo. maître Doudou Ndoye moom itam euh, jàkkaarloo bi mu amoon fële ca ITV euh, e e journaliste bi di ko laaj ci alal jooju ñu njortu ne dañu ko financé ki nga xamante ne ni moo di Ousmane Sonko ak waa Pastef nee na nag moom du àddu ci li nga xamante ne nii amul ci certitude léegi léegi ñu tegal leen ko ngeen dégg ca la mu wax alaaji indi ci xalaatam jeexale ak expert bi di euh, Ndiaga Sylla moom yi nga xam ne dikkaat na ba tey ci mbirum élection yi ñu fas yéene dëgmal atum 2024 wax na ci candidature Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye nee na nag bu ñu toppee yoon rek ñoom ñaan ñëpp kenn mënu leen a tere bokk ci yile élection léegi léegi ñu ñëw ànd ak yéen ci yaatal ñu dooree ko ak Djibril euh, Bey euh, ci kàddu yi nga xamante ne ni caat yëkkati na ko jëmale ko ci premier ministre bi di Amadou Ba alal ji mu am mu bari lool ba sénégalais yi di ko laaj ñu dem déglu lam ca wax dellusi son muy pouvoir tous les hommes politiques qui sont là Ousmane Sonko y compris ñoo bokk même modèle de fonctionnement et je vous dis quand on me dit que Macky Sall euh, que Ousmane Sonko euh, l'autre il est riche comme Crésus oui Amadou Ba est riche comme Crésus il faut le dire mais légalement mais c'est cette loi qui est injuste la loi qui permet à un fonctionnaire d'être milliardaire est injuste malheureusement cette loi quand Macky Sall est accédé au pouvoir en 2012 il l'avait enlevée daf ko bëggoon dindi mhm. Ousmane Sonko qui était le chef du syndicat des inspecteurs des impôts et domaines moo ko xeex man j'ai dénoncé partout dans ce pays suuf suñuy dagg inspecteur des impôts yi di ko dagg au détriment du peuple sénégalais. d'accord xaalis bi ñuy jël di enrichir Ousmane Sonko man je suis fonctionnaire comme lui. gis na soxna si lenn la lañu war a gëm Sénégal ay enam ak ay crack moo fi amul xam lan moo am jaar-jaar théorie amu fii da ngay nit day am jaar-jaar. d'accord nit bu amul jaar-jaar xoolal. c'est génn école bi gën a fort ci àdduna tu n'es pas compétent. Ousmane Sonko il est sorti de l'ENA bu mu génnee ban jaar-jaar la am comment il a eu ses maisons. man je suis fonctionnaire depuis comme Ousmane Sonko j'ai pas de maison je suis locataire je dis c'est parce que les inspecteurs des impôts et domaines malheureusement dañu am privilège dañ leen defal ay privilèges yoo xam ne mhm. nous comme fonctionnaires ou do les deux autres Sénégalais font le même travail te amuñu ko donc il faut pas il mhm. faut pas gardons boo nee Amadou Ba il est milliardaire teg ci Ousmane Sonko teg ci Diomaye Faye alors et euh, dire pourquoi il est milliardaire noonu ñu jaajëfal ko moom Modou Diouf ak Abdou Top ci montage bi ji dégg nga Jibril Bey kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci Amadou Ba Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko nee na nag euh, Amadou Ba alal ji mu am daf ko am légalement waaye itam am na lu ci dolli peut-être yu Sénégalais yi bàyyiwul xel lool muy que ne euh, président Macky Sall bi muy ñëw ci pouvoir bi 2012 am na privilège yu nga xamante ne ni ñi nekk impôt am nañ ko. mu bëggoon ko fi jëlee waaye neen Ousmane Sonko dafa lànkoon carré ne loolu du fi jóge waa coow li <coughs> day bari na waaye xam-xam bi néew na lool boo dégloo wax ji daanaka wax ji àndut ak xam-xam hmm. waaw maanaam coow lu bari la rek joo xamante ne bi coow na ko mais amul du tak benn yoon xam-xam amul benn loi bu permettre ci Sénégal fonctionnaire nekk milliardaire hmm. existé wut hmm. donc loolu moom boo ko dégloo rek xam ni li mu wax du waxi nit maanaam wax kuy tiit di wax la rek sekk nit ñi bu ñu dem ci plateau tamit di défendre benn mbir nañu am ay argument parce que sénégalais yi toog di déglu ay boroomi xel lañ dañuy xalaat dañ lay déglu di la bàyyi xel am na yoo xam ne boo ko waxee da ngay xeeblu ki ngay waxal léeg-léeg nit di dem di défendre nit far gàccaal ko loolu mu wax loolu la parce que dane nit ki da ngay am parcours mais pas rek ngay am ay argument di wax. Hmm. Ousmane Sonko ñaar yooyu la booree dafa am discours am parcours. jaar jaar jaaram moo ko may li mu am jaar jaaru jaar ci bànqaas yoo xamante ne bi ñu bari jaar nañ fa nag am xaalis. kër yi mu nee am na ko waaw donc kër yi mu ne am na ko moom mënut a justifier loolu loolu mooy li ñuy wax di sànni rek Ousmane ko li mu leen wax depuis lors hmm. bu ñu ko gisoon nee na leen ku weesu sama kër gi nekk ci. Euh, Eh, cité kër góor gi bu ngeen gis jël leen hmm. donc kooku moom wane na ni lii la am hmm. te kër googu boo ko gisee xam ni këru fonctionnaire normal la kër gu normal la rek du kër goo xamante ni gi kër gu extraordinaire la Amadou Ba nag moom wax dëgg fa yàlla boo gisee ay këram nag moom da ngay xaw a yéemu dangay jàpp ni sax nekkatoo Sénégal loolu bokk na ci li taxit nit ñi waxal ko ne am na alal donc tamit boo gisee li Ousmane Sonko doon wax ñii Ousmane Sonko da leen a jiitu ci lii boo seetee danaan ñun ñëpp a yem moom ñun ñëpp a yem la wax quoi. Mhm. dégg nga ko mu ne bu ngeen nee Amadou Ba nee leen Ousmane Sonko nee leen Bassirou Diomaye Faye ñun ñëpp a yem. loolu lañ bëgg quoi ñëpp nag yemuñu Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al da doon wax ni bu ñëpp yemee am ñu gedd seen cër kon ñëpp mënuñoo bokk yem. Mhm. donc yii muy wax ni discours politiciens yu njëkk yi la. Mhm. moo tax euh, politiciens yi. danañ sonn lool lool lool lool lool parce que dañoo xamul tuut fu politique bi toll jàpp nañ ni fa ñu ne woon démb ak bërki démb fa lañ war a ne te foofu dañ faa war a jóg am beneen discours boo xamante ni bi amee nañ ko wax ji doonatul rek wax di sànni li ngay wax nit ñi dañ koy analyser déglu la décortiquer génne li nga xamante ni bi mënta ne ñu tegal la ko fee li mën a nekk donc cela di nga gis ñaari nit ñu bokk di liggéey ci bërëb Mm-hmm. comparaison n'est pas raison nit mm-hmm. dañuy liggéey ci bërëb kenn ka sax ëpp salaire mm-hmm. keneen ka am kër te kii du am kër mbirum kër loolu leneen la moom mi ngi ne moom amul sax kër. depuis 2002 il est fonctionnaire waaw mais mais day liggéey di lekk wala muy maye di jee woote jomba ñaaw di sa sa fasaat. Ah, loolu lépp kër ah yi ñu defal ñu nekk impôt privilège yi nga xamante ne Ousmane ah, na la ne la jaarut ci ay privilège pour am kër nee na fii mu am cité kër góor gi da koo fay. ci banque sàngam la demoon bañ koy kii mu muy versé comme ñëpp kon kook kañ wax dëgg fa yàlla wax na la boppam nee na bu dee du loolu leneen lu mu am jël leen. waaw donc loolu leer na. dafa wax leneen lu nga xam ne jot nañu clarifier ko parce que nee na Macky Sall bi muy doog a ñëw euh, loolu noonu daf ko fi bëggoon jëlee Ousmane Sonko bañ. ne du fi jóge loolu yëg nga fi ko Macky saal ba koy dindi. Ah, moo tax nag ma bëgg nag. waaw mais xam nga loolu mooy waxu politiciens yi dañuy wax di sànni rek maanaam dañuy wax loo xam ne boo leen ci nee duut baaraam ne leen loolu kañ la ak fan la ko président Macky Sall wax duñ ko génne ilaa yow mi diin maanaam wax la yoo xamante ni dañuy wax rek di sànni mooy waxu politiciens yu njëkk ya façon boobu lay la yore mais bu fekkente ni bii tey loolu am na. Mm. loolu bu fekkoonte ni bi am nga moom mi moo koy wax kon balaa mu koy wax gars yi wax nañ ko bu yàgg. donc ay wax la yoo xamante ne bii pareen saay wax wax ju kii sànni loolu doxatul quoi. doxatul donc tot fi mu toll nii moom ci loolu la nekk quoi maanaam euh, bi li muy wax ne bon nee na mi ngi liggéey depuis loolu amul kër. 2002 waaw depuis 2002 amul kër. waaw mais ça dépend am na koo xam ne mi ngi moom xam nga 2002 lay wax am na koo xam ne 1980 ba léegi mi ngi liggéey amul kër te mi ngi xëy di wàcc di dem di ñëw di def li muy def amul kër. nee na am na koo xamante ni kii tey démarré na même pas un an mu am kër. Mhm. loolu mbiru sunu borom la mais li ñu wax mooy kër gi ngay am ak lu mu mën di doon na nekk alal ju set. Ah, mais nee na Amadou Ba moom alalam du set. waaw alalu Amadou Ba daal moom en tout cas Amadou Ba kañ moom bu fekkee ne alalam légal na <laughs> kon en tout cas daal mbiru boppam la mais en tout yi moom gisee nañ ko neneen ñoom ci seen biir ñoom ñoo taxaw ne Amadou Ba milliardaires yi mu am milliards yi mu am ñoom ci seen biir ñoom ñoo koy wax bërki démb rek bun jonn wax na ko fi wane ni maanaam dafa joxoñ tuddut waaye ñëpp xam nañ ki muy tudd wane ni moom amul milliard donc xas la fi mu toll nii maanaam réew mi léegi dafa toll foo xam moo lay wan ne la euh, mentalité yi soppeeku na parce que léegi bu njëkk ba da nga daan politique ñu naan la ay kii dafa yor xaalis yorul dara ba dopp bëgg a dugg ci politique léegi kenn waxatul lool de léegi nit ñi génn nañ ci ne diw yorul xaalis léegi da ngay yor xaalis ba noppi mu doon xas ci yow donc il faut que ñu xam ni mbir yi jóge na. Mm-hmm. fi mu nekkoon am na foo xamante ni fi fa la ne. Mm-hmm. waaw mm-hmm. xam nga moom laa doon wax l'autre jour ma koy wax sama ma ne ko réew mi euh, Ousmane Sonko gagné na ba pare. Mm. parce que même tey su fekkonte ni dama lay jox benn exemple que ni Ousmane Sonko dirigé wul réew mi maanaam ki koy dirise ay xalaatam la koy diriger maanaam bu ñu rombee. tey ñun bu ñu rombee le vingt cinq février deux mille vingt quatre. incha allah kay falu ak ku mën a doon ay xalaatu Ousmane Sonko lay gouverner maanaam lii fi nekkoon jóg na fi parce que kenn mënatul a yore réew mi beneen façon bu wuuteeg bi nga xamante ni bii mooy bi Ousmane Sonko la parce que dafa leer yoon bi daa leer moo tax yoon woowu ala kulli al nit ñi xippi nañ ba pare. Mhm. maanaam euh, leneen mënatu la ne. Mhm. parce que lii nit ñi dañ koo mos ba noppi xam ko duñ koo gis muy ñëw ñu xam ni lii la moo tax kenn dootut yor réew mi ci beneen façon bu dul bi nga xamante ni bi tey moo yoon wi mu tëral. Mhm. système bi ci boppam moo fi jóge maanaam ni ko tubaab bi defee woon ci seeni bopp ñu ne ci rocc na ko. te loolu nag liggéey la boo xam liggéey boo am solo. am solo la macha allah ay ca ñu euh, dem nag ànd ak ki nga xamante ne ni moo di maître du Ndoye euh, ci alal jooju nga xamante ne ni daanaka boobu ba tey moom lañuy ñuy waxtaanee ci pénc mi ñu ne nag dañ ko daal di financer maire bu Ziguinchor lu ñu njoxtu la moom nag nee lu ñu njoxtu du ci xuus lu bari ñu dem déglu kàddu yum ci yëkkat ci dellu si. Ousmane Sonko qui cite dans une affaire qui transcende les frontières sont des fonds qataris qu'aurait reçu le maire de Ziguinchor pour renégocier les contrats du pétrole et du gaz. Suivez-vous cette affaire, maître Doudou Ndoye? Euh, si vous me permettez une réponse de sagesse. Laquelle? Je vous dirais, monsieur, vous avez dit des fonds qu'aurait reçus. Oui. Vous-même, vous n'affirmez pas qu'il a reçu. C'est une accusation. Nous, nous parlons français. Oui. à moins qu'on parle arabe et chinois à la fois. Nous parlons français, c'est de la grammaire française. Vous m'avez dit qu'aurait reçu monsieur X. Oui. c'est conditionnel. Si vous m'avez dit qu'a reçu, mais vous m'avez dit qu'aurait reçu. Oui. sais rien C'est vous-même qui m'ont montré que vous n'en savez pas. Là, vous n'avez pas la certitude. C'est présidentiel moi, l'endroit d'un maire des Ziguinchor. Ah, Est-ce que vous suivez cette affaire Mais je n'ai pas à suivre cette affaire. Tout le monde, tout le Sénégal lit les journaux. Et dans tous les journaux du Sénégal, c'est oré et écrit. Oui. Tout le monde c'est oré. La vie de chacun d'entre nous, c'est du oré. Tous les Sénégalais sont accusés de tout et de rien. C'est votre réponse par rapport à ça réponse. En tout cas, Aïcha mi ngi noonu alaaji accusation yoo xam ne du jeex mukk saa soo xëyee rek yaa ngi dégg ay euh, tuuma yu ñuy teg ci kawam moom euh, président Ousmane Sonko tey jii euh, journaliste bi laaj ci maître du Ndoye dégg nga kàddu yi moom ko tontu. waaw maître de wax dëgg fa yàlla maître Doudou Ndoye ku ma neex la. waaw hmm. ah, parce que maître Doudou boo ko dégloo rek xam ne. Hmm. ci njub lay taxaw. maanaam ay mbiram. tontu la poliment waaw moom euh, que ni li muy wax neex la walla mu naqari la waaye li mu jàpp ni lii mooy jub ci loolu lay taxaw. Mm-hmm. gis nga ko moom tudd sax ay Ousmane Sonko. nga mm-hmm. bi muy demee bay wax ne. monsieur X. la utiliser pour wane ni moom jëmalewu ko. ci moom ci kenn. parce que li ñu wax moo taxawut donc soxlawut sax ab journaliste di laaj ci lu mel nii. parce que mbind ma ci jëmmi boppam moo sérieux wut mm. mm. xam nga mbind ma ci boppam moo sérieux wut dafa am rek ñenn ñoo xamante ni bi taxawoon nañ bëgg ko def lu sérieux bëgg am koo xam ni moom lañuy ñuy taqal te mi ngi bëgg a doon loo xamante ni bi euh, luy faral di am la mm-hmm. parce gisoon nañ ko ñu tuumaaloon ko ak kii luti waaw ñu tuumaaloon ci Ousmane Sonko loo xamante ni bii Tini Ngowel moom ci jëmmi boppam dañoo waaru daal di ne lii ñu wax fuñ ko jëlee ak lan mm-hmm. maanaam Ousmane Sonko nag dafa nekk loo koo xam ne mënatuñ koo taqal ci biir réew mi parce que mm-hmm. dafa fee set léegi bitim réew la ñu koy bëgg di taqalee fu mu toll maanaam lu jógee bitim réew parce que bi ñu xoolee ci biir réew mi loolu mu la wan ne la ci biir réew mi moom dafa kiliñ mais nag léegi nag il faut que ñu wut ay pexe nag ngir linké ko ak di Sonko dafa wax ba tàyyi wane ni nekkul ci benn lobby duggut ci benn lobby. Hmm. xam nga yëpp daf cee jiitu maanaam dafa doon tontu wax yoo xam ne ñëwagul maanaam bi muy wax loolu peut-être sax mën nga jàppoon ni wax ji ndax am na sens parce que xamoon lu tax mu di ko wax mais tey dafa am yu bari yoo xamante ni bii dafa lay jox raison que ni bi muy wax loolu parce que tey ji boo duggee ci internet bi booy. vidéo yooyu la ñuy jël pour tontu ñenn ñi nga xamante ni bi ñi ngi koy jéem a taqal. Mm-hmm. pour wane ni nekkul ci benn lobby. Mm-hmm. parce que xam na boppam tey jii sonk bu dekkoon ci lu doy ni tarafatal ay ni ci ay lobby yu koy jox xaalis. Mm-hmm. musiba am peut-être que ni bon ay nit sax mënoon nañ ko koy wax nit ñu xamut mais moom xamoon na mooy kan xam pare say nit da ngay xam yaay kan. moo tax bi mu dalee lancé pour sénégalais yi ci seen jëmmi bopp la joxoñ ña leen. mbir mi projet bi. du man du man yéen la ñun la ak yéen dangeen ciy def seen participation sénégalais yi tamit di ko biñ ko dégloo dégg ko gëm ko gëm li mu leen wax ñu xool discours am xool parcours am ñu ne kii de jar naa dégg mm-hmm. ñu ne nag ñun ñoo koy porté yóbbu ko ba jox ko réew mi. Mm-hmm. moo tax tey jii ko bu nee nangam laa soxla ci xaalis sénégalais yi daw joxe ko. mais saa su ko joxewaan yaa ngi fàttaliku jamonoy Kopar Express bi gars yi dañoo gaawantu. waaw mais gars yi ñu ngi koy jox rek xam nga fi mu bu ñu buñ tëjee loolu. ñu créé ay bracelet yoo xam ne ñu ngi koy jaay sénégalais yi daw jëndi. à un moment donné ñu taxaw ne bracelet yi nangootuñ ku ko jaay ci mbedd bi wala nangootuñu ku ko takk. kan lañ ko wax ñoo gaa yi koy jaay ci mbedd bi. non am na jamono ju ñu tolloon. ñu ngi doon commencé di ko dugal ci ci ci ci réseau kii rubrique ñenn ñi dañuy ruube rek. Hmm. gaa yi koy jaay ci mbedd mi. nit ñaa ngi jënd di yóbbu seen kii. Hmm. fu ñu jaayee pénurie am bu ñu tàmbalee jaay gars yi sonk ko mu jeex loolu mooy li nga xamante ni bi tey moom soxlawul xaalis boo xamante bi bitim réew lay jóge pour di financer ay milieu parce que dafa taxaw wax ne suñu defee yenn yi. Hmm. ëllëg si biir da ngay yor réew mi fekk jaay nga yëpp ba pare boo paree nit ñi dañuy ñëw demander la ne la jox ma sama wàll te noonu lay demee. mu ne looloo tax loolu du ko def xalaatut benn yoon keneen du ko jox dërëm liñ koy jox sénégalais yi comme niñ ko waree jox seen carte ñoo koy jox seen i dërëm ak ñaar dërëm mu cotiser am la muy am daal di dem dugal waaw ku mel noonu saa yoo xëyee di ko taqal sonko bi mu xëyee ba bi mu nekkee sonk ba nëga man li may gis mooy benn personnage boo xamante ne bi dañ ko téye di ko taqal te saa yu ñu ko taqalee muy gën a jëm kaw donc mënuñu bàyyi stratégie boobu te xam ne bii baaxut parce que koo xam ne yaa ngi koy taqal di ko taqal te saa yoo ko taqalee mu gën a jëm kaw. Hmm. mais man pour man la stratégie boobu baaxul bi gën mooy boo xamante ni bii nga wut leneen nga jéem a fexe mel ni moom fexe sénégalais yi bëgg la. Hmm. lan mooy nim mel jéem a la tegu ci njub rek parce que defe naa ni sénégalais yi leen dong lañ bëggee Sonko du leneen muy jub. mais ñoom ñoom jàpp nañ nii sénégalais la bu jub. ñu jàpp ni kii war nañ koo mën a jox suñu réew. loolu dong la. mais ñoom seen di bopp ñoom jàpp nañ ni ñoom ñoo nekk ci dëgg mais waa ji moom. ñan ñoo nekk ci dëgg. ñoom jàpp ñu ko ñoom xam nañ ni waa bi ci dëgg. <laughs> xam nga ko dafa ñëw ci marché bi. <laughs> marché bi xam nga lu ñu fi doon jaay maanaam dafa jaayoon marchandise mu raar mais ñëpp dañoo defoon ni marchandise mi du jar ci réew mi marchandise mu làqar ceeg lijjanteeg trian moom moo nekkoon ci. penc bi bi mu ñëw nag moom lal njub ndekete yoo sénégalais yi ñu bari njub dafa rafale woon. Mm-hmm. sénégalais yi daw wutali ko nag ñu ne ah ndekete kon jub day jaay ñoom dañu jàppoon ni jub du jaay ci miim réew. Mm-hmm. ñu daa dee ñëpp loolu lañ leen gëmloo woon. Mm-hmm. politique naxante lekk la woon. toog muy dox moom mu ñëw moom jël njub jaay leen ko buy ànd ak yow ànd ak yow ci njub boo ko bàyyee nit ñi dañ lay xool bëtub ku jubati moo tax boo àndeek moom nit ñi di la xoolee ku jub boo ko bàyyee nit ñi ne ko jubadi nga. parce que léegi dafa dem ba jamono jiñ toll nii. day incarné ci réew mi ak njub tey jii boo xoolee ñu ne la diw de ku bëgg sonko la rek li ngay jëkk a xool rek danga naan ah kon ku jub la ku bëgg lu jub la mm-hmm. loolu nag mooy li nga xamante ni bi mooy li am solo mm-hmm. parce que tey jii jamono ji buñ ñee diw ku bëgg sonko la dañ naan kii de du kuñ mën a ger du koo xamante ni kii tey soxla na alalu jàmbur boo ñëwoon fii tey fekk njabootu Ousmane Sonko ñu ne la ñii de waa patriote muur ngaa bàyyi sa portable dem jàppi julli. Mhm. parce que da bu fekkee ne kenn raxu leen. waaye am na njabootu politiciens yoo xam ne bu ñu toogoon fenn doo fa teg sa portable ku wedd laa jël Assane Mesere ma demoon di yëkkati loxo ya yaakaar ne dañuy tafu portable am ba mu ñëw yàq der bi mu demee it kenn sàccut portable loolu nag c'est très important <laughs> man gis naa ñoo xam ne dañuy wax ne dañoo dëngoon waaye bi ñu bëggee Ousmane loolu de moom loolu macha allah moom loolu moom ñaari nit di mel noonu yàlla nañ ko yàgg am ci biir réew euh, ñu ànd ak nag euh, jeexaleeg moom muy euh, Ndiaga la wax ba tey ci candidature Ousmane Sonko ak bu Bassirou Diomaye Faye ñu xool ko dellusi Bassirou Diomaye Faye est-ce que aujourd'hui sa candidature ne souffre pas euh, de difficultés ou est-ce que sa candidature est égale parce que jusqu'ici il n'y a pas encore de condamnation définitive Oui, a priori, euh, on peut penser que Diomaye, Bassirou Diomaye Faye est en, entre les liens de la détention, même si en fait il s'agit d'une détention préventive, mm. euh, pourrait ne pas euh, justement faire acte de candidature, mais je dois préciser que le code électoral, même pour ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation, considère que tant que la condamnation n'est pas, euh, pas définitive et mhm. cette condamnation, même si elle est définitive, euh, justement empêche euh, justement donc le, euh, entraîne la, la déchéance électorale, oui. on ne peut pas effectivement ce qui n'est pour l'instant justement, mmh. donc écarter sa candidature. Mhm. encore que d'autres évoquent en fait ou bien établissent un lien avec avec la, la dissolution de, de, leur parti politique. Ça n'a aucun lien. Euh, et là aussi, je dois préciser que euh, le parti dissous, mmh. euh, il est évident qu'il ne peut pas porter une candidature. Oui. Mais par contre, euh, les responsables justement du parti politique, euh, vous allez dire de, de, de l'association mmh. dissoute, on ne les empêche pas. Si on se fonde, je dis bien si on se fonde sur la loi de 1981 modifiée. Cette loi prévoit effectivement que dans certaines conditions, euh, qu'on puisse dissoudre le parti. Mais cette loi euh, n'a pas prévu, justement comme conséquence, l'impossibilité euh, ou le manque de qualité donc de, de, de ses responsables à candidater. voilà mi ngi noonu alaaji dégg nga Ndiaga Sylla li mu wax euh, ci loi yooyu nga xamante ne ni moom lañ fi tëral tënk ko. Euh, jëm ci nag Bassirou Diomaye Faye bi nga xamante ne nii ba léegi nii kenn condamné gu ko mais ñu ngi wax ni mën na wala mënul nekk ci hmm. candidature waaye waa xam nga man de fi mu toll nii wax dëgg fa yàlla wax naa ko l'autre jour hmm. daal di ne man de gëm naa ne gis nga procès bi am suba le douze euh, ak lu ñu mën a dogal hmm. man ndogal yooyu man nekkatul samay ndogal man moom pare naa ci loolu. ah ndax la. waaw c'est nekkatuma foofu quoi nekkatuma ci ndax Ousmane Sonko dinañ ko condamné wala dinañ ko kii maanaam nekkatuma ci loolu de loolu defatuma cas parce que maanaam dafa am loo xam ne bi ma ko xamee ci laa xam ne ndekete lii yëpp ma ne ay mbiru caaxaan la. loo xam. waaw li ma xam mooy bi ma demee ba yëg nii. Euh, Sénégal gu jag rek laa bëgg te incha allah dina jag. incha allah. Euh, que ni bi ma demee ba yëg ni Sonko mii tey. nekkul nit koo xamante ni daa yenu nguur waaye li ko dugal ci politique mooy Sénégal gu jag. Mhm. parce que daf ko wane. je ci jamono ji nga xamante ni ay nit jaar nañ ci comme moom ci situation bii waaye bañ a joxe. li leen sunu borom man muy nit ki maanaam ñu ne bu dul man du doon keneen keneen dal na fi Khalifa Sall dal na fi Karim Wade mais Sonko jox ko Bassirou Diomaye Faye bi mu ko joxee ja Bassirou fay Faye yi topp ko bi ma demee ba gis sénégalais yi ni toppee Bassirou Diomaye Faye daa gëm ni nag après bu conseil constitutionnel joxee dogalam ka Ousmane Sonko di joxe buñ ko bàyyiwut mu dem kooku lay doon te gëm naa ni ni ko gars yi joxe Bassirou Diomaye fay ci parrainage bi. Mhm. même bu dee dañ ko bloqué ñu def seeni mbir ne bloqué nañ ko. ñoom ñaan ñëpp. ka nga xam ni moom la Ousmane Sonko di joxoñ mhm. après conseil constitutionnel sénégalais yi danañ ko topp parce que pour montrer nguur gi ne ko. sunu bëgg-bëgg mënoo ci dara te loolu mooy li nga xamante ne bii ci la sénégalais yi ne bi ma demee ba xam loolu nag amatuma pression ci lenn loo xamante ni bii fi mu toll nii mi ngi xew pour man jàpp naa ne yii di xew nii yëpp ay mbir la yoo xamante ni bii. ñi koy xawel xamuñ ne lii xewi na maanaam dafa xewi. maanaam procès yi ñu tegale. maanaam nit ñi nekkatuñu ci procès yi. nit ñi ñu ngi toog di xool. kan la leen Ousmane Sonko di joxoñ ëllëg buñ ko galgalee. Mm, d'accord maanaam nit ñi léegi pare nañ maanaam Ousmane Sonko am na test. Mm. maanaam bi mu defee testam. Mm. test bi mu def mooy bi mu nee Bassirou Diomaye Faye bu ko defoon rek jiixi jaaxa am ci parce que ñoom jàppoon nañ ñi bu waxee loolu jàppoon nañ ni duñu ñu wax Ousmane Sonko du mës a wax loolu far Ousmane Sonko wax ko. ñu ne bu ko waxee division dina am maanaam dina tas mu wax ko bloc am gisuñu tas am. ba noppi nag ñu daal ne. Bassirou moom lañ wax ne dañ leen ko pare ne mais waxaguñ ni mooy sunu candidat. Hmm. donc waxaat nañ ñëpp ne leen préparer leen. Hmm. kan lay doon. ñu ngi koy xam après conseil constitutionnel. d'accord mais Alaaji lii nga wax nii euh, mën na nekk lu nga xamante ne nii yow sa ngëm-ngëm la mais après est-ce que tamit du tax euh, justice bi sénégalais yi doon ŋàññi ŋàññe parce que képp koo digg muy wax ci wàllu bi yoon dañu ne la bu ñu toppee yoon carrément ñaan ñi dara mënu leen a téye tey jii ñu dem. atte bi <coughs> am réew waruñu faa nekk naan bu ñu toppee yoon yoon lu ñu war a doxal. waaw moo tax nag loolu moo lay wax la kon problème am na. waaw bu ñu toppee yoon. waaw loolu lépp nag li koy régler après incha allah le vingt cinq février bu fekkente ne bi yoon defut li mu war a def ak loolu. Hmm. keneen kiy ñëw bu ñëwee rek ñu jubbanti ko rek lépp normal mais en tout cas moom incha allah rabi na nit ñi fokkis que ni Sénégal incha allah dana jag ci at yi di ñëw. Hmm. ah dina jag. incha allah waaw yi dinañ fal ki ñu bëgg a fal. <laughs> <laughs> alaaji incha allah <laughs> d'accord alaaji yow. <laughs> loolu mooy li am solo loolu rek mooy li am solo li ngay gis ni coow yi ngay gis nii yëpp jaru ko. Ah. billaay jarul coow jarul xiiroo jarul ŋaayoo. am na lu parce que dafa am loo xamante ni bii moom ma wax la ma lenn ma jigéen. dana teel a leer sax carte gi. ah bon waaw gëm naa ni carte buy teel a leer la ñii di wax ay deuxième tour candidat yi nga xam deuxième tour la leen yóbbu pour jéema a paajoo bu yóbbu ñu xam ni. dóor mu daan la de kaawul kii la de. ah yow gëm nga ah, affaire de. incha allah noonu lay demee wallaay noonu lay demee. incha allah rabbi ay ca ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw di joxante dig daje incha allah. ci beneen. altine ci hmm. l'émission des émissions incha allah rabbi jërëjëf Aïcha mi ngi noonu ñu jaajëfal ko bu baax a baax tey wax ne nag xalaat yi rafet na lool macha allah nit yi nag dinañ ci déggee jariñoo ci ñi xamul woon xam ñi xamoon gën a xam ñu jaajëfal ko moom moo du Modou ab du Top ak lay jàlloo gërëm leen yéen ñi ñu doon suivre ak di ñu bàyyi xel di commenter suñu ay mbir wéy leen di abonné tey bés nag cloche de notification bi su ko defee rek bépp commencé di ngeen ko mën a am incha allah jox leen dig daje nekk beneen altine ci l' émission des émissions.